mu daal di jël xaalis bi jox ko jigéen ñi moo waral Mame Ndiaye Savon mi gisoo euh, employé yi mu créé moo waral ay maam Ndiaye Savon ñu daal di créer société moo tax nit ñi di leen ŋàññi Mame Ndiaye comprendre leen rek yàllaa ne bul bi jox jigéen ñi xaalis bi couronne bi ñun ñoo ko yor léegi moo tax ay góor ñu bëri ñoo xam ne ñoom comme yoratuñu xam nga dañoo yoroon di fox di cakaay di di di di di joxe seen xaalis teraluñu seen ndey yi mayuñu seen jabar yi defuñu daal léegi yàlla dafa tourné bul bi walbati ko daa di teral jigéen ñi jël xaas bi jox ko jigéen ñi jigéen xaa xamoo des na tuuti rek président palais bee jigéen a fay daagu doon présidente loolu des na tuuti ci kanam rek maa leen ko maa leen ko euh, promettre tuuti ci kanam présidente bu jigéen ngay dégg ndax góor ñi amuñu yërmande benn bëri nañu cakaay bëri foo duñu dimbalante duñu teral seen ndey yi du ñu teral seen baay yi te duñu jox seen jabar yi léegi nag ba ñu defee noonu nag yàlla daal di ne comme jigéen dafa am mànde te jigéen mooy jàmbaar ndax mooy yeewu fajar gàddu paanam dañ dem jënd ji ay jënam yenn ko dem ca marché ya di jaay ak di waas jën ya di wol mu daal di tourner boule bi nag jox jigéen ñi xaalis bi moo waral góor ñi yenn góor ñi ñuy mer ak di rendeeku duñu am lu neex seen xol du neex bu ko defee ñu yaakaar ne la leen metti nit a leen ko def fekk déedéet li leen metti kenn defu leen ko gis nga borom bët bu rëy bii bu doggalee danga cay ànd ndax boo ca àndulee sa xol bii mooy rendeeku te doo ci mun dara dem leen toog góor ñi couronne bi ñoo ko yor fii réew mi toolu jigéen ñi la yàlla teral ñu ubbi ay société ay societé boo gis jigéen a ko fabriqué kër yi ay employé bu ko defee nag ñeneen ña topp ca ginnaawam di dunguru xam nga dunguru gi léegi góor ñee koy def góor ñi ñooy jokkoor maajoor jokkoor leen ñooy kaa di détail ñooy teesante ñooy saaga ay ndey ñooy wax wax ju ñaaw ñooy soxor di iñaan di iñañati ndax la leen yàlla joxoon la ne foqeet jox ko jigéen ñi waa lii lu ci waay moon kuy mere doo kalaame kii borom bët bu rëy bii nga bëgg a nekk ci àddina bii di rendee kuy mer di xuloo yaakaar ne la la la la xañ ah nit a dem liggéey la ci sëriñ kenn liggéeyu fi kenn au contraire yéen yéen ay dem di liggéey jigéen mu këpp seen kaw yoratu leen duuli mbaam la ngeen yoroon yoratu leen ko te du ngeen ko yorati ndax xam nga lu tax yàlla day xool ka am yërmande mu daal dina jigéen ñi comme ñoom ñoo xam fay metti ci àddina bi ñu am yërmande di dimbalante te bu ñu amee lan la ñuy njëkk a def yaay papa doom kan moo yor njaboot gi léegi njaboot yi ci kër gi kan moo leen yor du jigéen ñi waa yàlla walbati bul bi nag jox ñu léegi loolu bu ngeen ko nangoo topp sunu ginnaaw da ngeen di am bu ngeen ko deful da di gaañu te du ngeen yor tus góor ñi yéen lay wax ànd leen nag xoola respect réciproque ngeen di ànd topp sunu ginnaaw amu leen respect réciproque xaj ya ca am àll ba sax ñoo leen di tane ndax du du ngeen ko yorati et bi ñun la ko yàlla jagleel de fi réew mi tollu kan nga dégg société boo dégg ne créer na employé ñan la ñuy wax du jigéen ay ñoom maam Ndiaye savon ay ñoom foone foone ay ñoom euh, xaritu maam Ndiaye savon ba nu mu tuddati euh, ka yor natt ya waaye tur balaay fàtte ki yor natt yi ñooñu ngay dégg léegi ñuy créer ay société ak ñeneen ak ñeneen te des na ñeneen ñu ngeen xamul ay ñoom Fanta Mbuub Fanta Mbuub laa fàtte woon ay ñoom Fanta Mbuub ñooñu ñooy kër créer léegi ay société di jël ay nit xool yàlla xool la wax sa xool bi bu leerul yéene woo nit ñi jàmm di fakastal nit ñi ak di leen ndogaan soxor sa xool bi xut-xuti lu nit am nga ne lu tax mu am ko doo am jàmm salaam doo ko am te nag kaay ma wax la nag xam nga fu ñu rawantee ci yor sa koppor dem ba ca sanday tarbiyu ko sukkuraam yëkkati ca xaalis ba may ko waaye axeeti mu laa naa doo raw ñett ku mer doo kalaamee borom bët bu réy bi mbaa nga xool nag ndax yenn saa ñu ne ndey liggéey ndey yi liggéey nañu de sa ndey daa liggéey sa kër baay toj xutu xataam ba haa yow nga doon ab doomu xaraama tanjaay tuur sa liggéeyam nday ba tekki woo dem ak tey lama leen wax ca tiktok balaa leen di waxaat ku tuur sa liggéeyam nday tekki woo dem ba tey duuli mbaam doo ko yor ngay wër di mer fii kenn defu fi dara nit dara ku mer kalaameel yàlla kenn defu fi nit dara seen ndey yi sax du ma ne ku mer kalaameel sa ndey ndax seen ndey yi dañoo liggéey ngeen jël liggéey ba këpp ko ca xaj tekkiwu leen dem ak tey ndax boo amee xalaatoo dem ci sa ñaari waajur ya nga xamante ne gannaaw yàlla ñoo la wàccee ci àddina bi nga jox leen di dem di jox ay sàmba suraabaale ca mbedd ba waaye yow yaa xayti laa naa bu la yàlla xañee looy mer lan ngay rendeeku lan ngay mer doo dem nga kalaam aaxiraatuy sa sabali bref nee naa la Maria Sine may sa biige Maria Sine maar day ñëwaat ci game bi ndax gis naa Omaro def benn vidéo vidéo ba neex ma lool xam nga ñun dañoo yàkkamte mu delluwaat si game bi ndax moom nee naa la moom ak Viviane la yàlla teg ci réew mi ñuy woy waaye yaa xayti mu laa naa ñoom bu ñu woyul kuy woy ba Maria Sine toogee woyatul ba tey da ngeen fee dégg ku woy kan ngeen dégg mu woy déggu leen fi kenn mu woy amul woykat nee naa la ci Sénégal ñaari woykat a am Massa Issa Dieye Fatim Penda ak Mañaan Viviane ak Maria Sine may sa bige Maria Sine maar waa Maria Sine may sa bige Maria Sine maar yow boo woyul kuy woy dangay dellu siwaat ci gém bi di bégal say fan ndax ñu ngi lay xaar ñun dañoo am ngor ñu boo demoon ba kilikoro ñu bëgg kenn yow la ñuy bëgg boo toogoon woyatul woyatoo tamit duñu déglu kenn yow la ñuy déglu yow lañu am amuñu keneen dellu sil ci gém bi danga fee am nag palace bu yaatu boo xam ne yàlla la ko jagleel nga dellu siwaat nag ci fair play jàkkaarloog say fan rek ñu ko commencé say fan suñu commencé bégeewaat ah yow la fi yàlla teg Maria Sine yow la fi yàlla teg de kan la fi teg keneen ku dul yow séeri soxna ay dara ah yow ak Viviane la fi yàlla teg waaye yow yaa xetimu laanaa boo ñu wayalul ku ñuy wayal kan moo ñuy wayal ñun déglootuñu ay woy géej nañoo dégluy woy ah di la ma saw rek nga ànd xolu muñ lépp jàllee nag ba lépp jeex maar da ngay dellu si waat nag Maria Sine bii gay nag Maria Sine xale yi namm nañ la ñoo ma yónni ci yow xale yeeg mag ñeeg mag maj mbojo mbojo geeg mbere mbese geeg màgget yeeg ñëpp a ma yónni si yow ne ma Rita sa xarit bi na dellu siwaat woy ma ne leen na t'en fais pas day dellu siwaat woy chéri soxna ay dara Karara yow dangay dellu si woy ndax nag sa ndey bu la ñaanalee sa baay ñaanal la nga am ñaanu waajur mu topp la rek da ngay gudd fan dund at yu bëree bari ba pare dellu si ci gém bi di ñu bégal mariage si boo woyul kuy woy ma say sa jëy Fatim Penda ak maa ñaan rek mënut a woyal réew mi yow foog nga ñëw yow ndax yàlla moo leen fi teg ngeen nekk ñaari woykat ñaari doomu Penda Ndaaru woykat ngeen fi amul keneen ba nga toobee toogee ba tey eh, dégguma fi ku woy kan ngeen dégg mu woy da ngeen fee dégg ku woy ku ngeen gis mu def spectacle ah man mi dama am sax spectacle su ma war def case di compteur maa ko am de te bu ma koy kan moom may seetaan yaaxati mu laana ay quelque nit Maria Sine si waatal ci game bi nag ñun am nañu sax spectacle cage di contour tey ak panel boobu noonu waaye xam nga ñun comme nag yàlla xaw noo kii noonu kenn déggu ko waaye yow danga bokk ci réew mi mën a woy nag dégg daal daali am daaj ba pare nag di def social teg ci yow di def social teg ci ku yaakaar ne man dama bàyyi Maria Sine may sa biige bu bàyyi woon wooy vidéo yi may def sax dootu leen ko gisati ma koy def damay pare ci aar beeg lépp lu ca bokk dootu ko defati e xam nga lu leen di yëgal yéen ñi jege Maria Sine may sa biige yéen ñoom Benjamin ñoom Njaga Orog ñeneen ñaag ñeneen ñaag ñoom Omaro seen waaji na dellu siwaat woykat amu fi moom fi nekk di bégal waa dama leen di yàlla yaaxati mu laanaa ah, moom bu toogee kan moo ñuy wayal nag tamit ah? dëkk baa ngi ne tekk na selew kenn déggul kenn nee naa la bu ma jógee ci mariage si may sa bige damay ñëwaat ci yéen xol day settalaat settal leen seen xol yi la Rita war a am da koy am te munoo ci dara la keneen ak keneen war a am da koy am munoo ci dara may leen nit ñi jàmm te nag am na nit ñoo xam ne ah boo leen laalee yàqu de am na nit ñoo xam ne genre maam Ndiaye savon yeeg ñoom Rita Paradek ñoom fanta mbuubin gis nga ñooñu boo leen laalee dañoo am ñaanu waajur ñoom mami Cobra bu Thiès sama xarit boobu moytu leen ñooñu dañoo am ñaanu waajur te ñaanu waajur gàllaaj la bu lay topp ba illaa yow mi diini e ñun duñu juddi jéeri lu ñu mbajat mbadantaat gàcce gu ñu fekk faj ko moytu leen yéen ñi ngeen xam ne da ngeen nekk ci internet bi di live bàyyi leen tamit di tuumaal nit naan diw lale laak lee la yaxiti mu laa naa koo bettul bul ko tuumaal toggab ceeb wala togg mbaxal nga doon góor jigéen ah toggab ceeb wala togg mbaxal ku mu tax nga doon góor jigéen xanaa kon ña ca France di togg di yekk ñoom ay góor jigéen lañ wax ji ñaaw na delloowaat leen ko fa ngeen ko jëlewaat wanaasuwaat leen wax ji wanaat leen ko bu mu génn wax ji bu mu génnaat na ngeen ko ne dariix woon bu mu génnaat kuy togg du kuy togg rek mooy góor jigéen bu ngeen demee France gee góor ñaay togg jigéen du togg may leen nit ñi jàmm bàyyi leen di ji ñaate yaa ngi koy jiiñ muy miim jooju asan bu woy du ngeen ko déglu woy boobu yaa ngi koy jiiñ muy miim yaa ngi koy jiiñ bàyyi leen ji ñaate bi sama vidéo xoola bere fag yàqayti mulaana waru ko woon a am man nag yàqayti mulaana wax leen du leen neex ci man ndax man yàlla dafa def ne man xam nga ku xool sama wateef gii ma def samay woñ couleur yi woñ yu bule yi xam nga man dara ma man loo wax ci man it ma faxas ko na Viviane wax ne lu waay wax ci man ma faxas man damay faxas rek jàll man sama dund gii kenn du ma teg stress de ee eh, xoola damay dund lu neex di enjoy sama àddina muy neex ñaanuma kenn àbbuma kok soor wuma kenn may leen nit ñi jaam a ah, doy na waar